imam Cheikhou Diané mooy imam bi toppa ci imam Baba Moutar mi bi nga xam ne mooy imam bi jumaa ji fii waaye yàlla mu jamono yi imam Baba Moutar mu ngi ak Amérique ñu waaye mu ngi fii ne mu ngi jokkoo ñun waxtu ca suba ci ak ñu jëlee yëpp ba tey tey ci tubaab ñëpp mu ci laaj bi waaye imam Ousmane Niang moo am kàddu jumaa ji su ko bee wax ca laaj bi

imam Baba Moukhtar Li nga xam ne tey su fi nekkoon jataay bii moo ko taxawee waaye moo ñu jox ndigal ni tamit moo ñu wan ne teraanga ji moom lañ ko jox indi ko ci jumaam ji ne naam nekku ci waaye mu jox ñu ndigal pour ñu tatagal mbokk yi nga xam ne ñoo def teraanga ju rëy ji masawu leen ne leen bismillah ci jàpp mu ne gannaaw mooy imaam Babal wax ñu ci benn suñu kilifa imaam Cheikhou Diagne ak caaman yi jumaa ji El Hadj Abdou Diagne si El Hadj Abdou Diagne si ak ndax comité bi nga ndax comité bi waa SDB yëpp. ak dëkkandoo bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi ñu ngi tatagal gan ñi dinaa wax ne bismillah ci place bii nga xam seen place la rawatina nag alaa jox man jàlloo ko ne bu mel toog nga xam ne ndey joor imam Babou Talib ak yeneen mbokk yi mu àndal te mënuñoo wax seen tur ñoom ñëpp ñoom ñëpp nag kenn ku nekk ñu leen jox sa di leen wax ne bismillah ci jotaay bi ñu ngi masawu nag yi nga xam ne ñoom lañ fas gën a ñaanal di leen muy loo mën a ngir ne mbir mi ñu delloo ko ci yàlla ndax yàlla moom ñu rek ba ñu mën a dellu di masawu ci turu imaam nga xam ne ñoom lañ fas yéene ñaanal. nga xam ne ñoom lañ fas yéene ñaanal. leen yàlla xam xam lu àjjana. ñaan yàlla itam. ñaan yàlla itam. ñu na ñaanal. seen mburu. seen mburu. seen mburu. yal nañ yàgg ci leen yéex a fekk. a fekk ко мне ba tax na amatuñ wax ñu ngi gërëm sant ñu seen ak kilifa yi ñëw ak taalibe yi oo léegi ñu ñëw di dimbalanteeg ñoom ñoom it sargal leen di leen nag ci ndimbal salaatu ala nabi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 ولو ذا بالفرق من سر ما حلق ومن سر غاسق إذا وقع ومن سر نفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالله ملك الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسول المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم أو تأويل على غير ما أنزلته أو تأجيل عند والدين أو كسل أو ذي لسان أو وقوف بغير وقف أو كتاب بغير مبرم أو إظهار بغير بيان فاكتبهم منا على التمام والكمال والمحدث بالقرآن وارضنا فضل من كره من حقه ما الأعداء والقلب واللسان وهب لنا بخير والسعادة والبصر والأمان ولا تختمنا لنا بالشر والرجعان ونبنا قبل المنايا بنوم البحر والإسلام وعافنا من عذاب القبر والسؤال المنكر والنكير وبيض وجوهنا يوم البعث وترحمنا قلوبنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسخر ميزان حسنا وثبت أقدامنا على صراط السنة والجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائه يا ديان اللهم أجل القرآن العظيم لنا قلوبنا جل أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائلنا إلى جنة النعيم اللهم أجل أنيسنا في المرسلين وسحابتنا في البلدة ومسبحنا في الظلمات ودللنا في الخيرات ومنقذنا في الجنة واسقنا به قريبا يا رب يا رحيم اللهم احكم بسائر اجالنا وفق بزياده عملنا

ترون فلا نرى والنور ما ترون اللهم فلك سوى ما قرانا نورا ما تلوناه للوجود ولمن من سالم كفين جمع امجان سالم تاج الناس والصلاة والسلام إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأزواجنا وأنا تعالى أجمعين وعلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وصاحبنا ورجمنا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 sallallahu alayhi wa sallam digal. loolu la ñuy yónni tam sallallahu alayhi wa sallam digal. seen mburu yàgg si loxo. yàlla seen mburu yàgg si loxo am. dañ leen yéex a fekk. dañ leen yéex a fekk yàlla leen fekk yàlla fekk yàlla leen fekk àjjana. ñoom ni ñu ko waxee woon. sallallahu alayhi wa sallam. kilifa yooyu li ma xool mooy ne suñ paree yaa ngi préparé am na ci mbokk yi ñuy joxe ay kàddu ci kàddu yoo xam ne tànn nañ ci mbokk yi ñu cee wax mbaa ki leen a waxal waaw eh, di déglu docteur Ndiaye moom tooma moom njëkk a ngi fii ndax mu ngi jox ko mu teg ko léegi soo gisee seen njëkk di ko fii ñi nga xam ne ñoo tax ñu daje fi yang leen a ñaanal ñooñu ay doomi réew mi leen jàngal ñu bokkoon ak yeneen doomi réew yoo

dinañ daan takk seen digga di wax di waare di wax li fi daan dox lu doon dëgg te yàlla rek a taxaw ñu koy loolu bokk na ci tax ñun tànn jumaa ji la ne fii la jumaa jumaa ji bokk na ci jumaa taxaw ñu wax dëgg bagi ñu jangan jaar Ini ci réew kembali bokk na lima jumaa di wax dëgg mu ne ñu leen a gërëm ci loolu di wane ne dëgg rek mooy sax suñ réew dia si Ini yang berikutnya Kepada yang menjabat Kepada yang murai Kepada yang mutif Kepada yang bercocok Kepada yang menjaga Yang menjadi tidak berikutnya Yang tidak berikutnya dikosiakan Lalu boleh disiakan sistem Yudhnya ajulnya Yang ada tiga unit Rohan pun juga Yang orang tahu Airport war nga nangoo ci moom lu mel noonu mi mu ñëw gërëm di leen sant jërë ngeen jëf garaakat yooyu ñu ko gërëm lool Bambam di gërëm Alaaji Ibu Ndiaye mi nga xam ne moo doon jàppale ci coordinateur bi ci wàllu ñi amoon coordinateur ci wàllu jumaa bi muy jëlee ko Amadou Ndiaye di ko door ñoom moo amoon wàllu baa ji doon di ñu ne ci ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon ñaanal seen mbokk yi ñu ngi fi mbokk yi jaaga ñaas di maama suñ des na ci waa yàlla def na dëgg gi taxaw na. ma ne ci turi famille Ndiaye Kounda ak madame Ndiaye ci yaayam ma nga xamante ne ah, fi mu ne nii ma ne waaye dara am ko ci affaire loo xam ne moom ngi am ñu ngi cee di soxla toujours. munafiki mshatani kuri na tashabi yanu tamu shapai yalara kale na pai munali mun kare ni tikare लोग सब तैयार करेगा मफ्ता में किसी दिन लगे हो जैसा था इकट्ठा किए बाकी अगर ना कुछ ना कुछ कुछ ही पंता देखने लगे ना Ini melakukan kejawabi mudah kembali. Alhamdulillah mudah dia mudah sangka. Kemudian di dijai lalu sana di mudah jai. Mama waktu di jawabi mudah ne koo ne itam am na yar am na teraanga ci nit ñi mu ne booy wut affaire ci mbiri àddina ne toujours rek mu ngi pare pour dimbale doomu aadama li ci ndimbal boobu moo ko dugal ci lim dugal yi moo ñu àndandooram

kon yow itam sax nga xam loo mën a def pour génne ñooñu ci jafe-jafe boobu loolu doon réew bu baax bu ne sa warugal la lii moo leen dugaloon ci lii ñàkkul ne dañoo dul place ñàkkul ne dañu xamul seen bopp mu ne xanaa lan ne ndax dañ ñu toll nii mbir boo xam ne dafa jar ñoom ñu wàcceelu defal ne la leen yàlla fay loolu amiin yàlla mu ne ba tey ñi nga xam ne génn nañ ak ba ca xamul bu ci ne ne la leen ko yàlla yombalal amiin yàlla ne leen ko yàlla yombal gannaaw loolu ñu ngi dem ci Ndiaye eh, Mamadou Ndiaye eh, mbaa ki ko waxal moo tax imam bay ñëw la ñu def ci imam bay ci turi eh, njabooti Ndiaga Diaw bi moo leen a waxal moom la seen kanam ઇમામભાઈ ઇમામભાઈ મોટી ઓછી કાઢી જોયું ترشد قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون imam ratib bi imam baram salih ak ay nayba am mboolem ay mañu fi teew ñu ngi nuyu it kilifa yi ñu rawatina kilifa Dianékouta ñu ngi leen a nuyu seeni kilifa yaa ngi fi Alaaji Mamour Diagne mu ngi fi Male mu Baye Ndiaga moo fi. li nga xam ne mooy yaay yaa sëñ bi yaa kii yaa Ndiaga Baye Ndiaga moo fi. waaye sax mën naa taxaw foofu rek. mais daanaka mën naa taxaw foofu. ñooñu yóbbuwaale yi ci des. kenn nag ki nekk xam na li ñu fi di fi tey. ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne. mooy ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne. ñoo jël seen bakkan. ñoo jël seen bakkan. jaay ko njëkk askan gars yi ko fi dundal askan wi. liñ doon def. liñ doon def. mais dañ ko doon def. ngir xeex notel. ngir xeex notel. ngir xeex uh, mbugal. ngir xeex mbugal. ngir xeex faat doomu aadama. ngir xeex faat doomu aadama. ci lu dul yoon. ci lu dul yoon. ñoom ñu ñëw. ñoom ñu ñëw. joxe seen bakkan. joxe seen bakkan. ngir loolu dakk. ngir loolu dakk. kon ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekkee. kon ñii nga ñun ñii nga xam ne ñoo fi nekkee. war ci ñii. am na lu ñu war ci ñii. lu ëpp lii ñuy def tey. lu ëpp lii ñuy def tey. nañ saxoo di leen ñaanal. nañ saxoo di leen ñaanal. te buñ leen fàtte mukk. te buñ leen fàtte mukk. nit yu baax la. nit yu baax la. ay jullit la. ay jullit lañ. ki ma ci gën a xam nag. mu ne ki mu ci gën a xam nag. dañuy wax si moom. tey wax ci moom. mooy Njaga Jaay. mooy Njaga Jaay. boo seetee ay maamam. mais soo seetee ay maamam. mën nga see compte juróom-ñaar. mën nga see compte juróom-ñaar. yoo xam ne. yoon ñaar ñoo xam ne. kan lañ. kan lañ. fóode lañ. fóode lañ. wali wi. wali wi. te bàyyam. te bàyyam. képp kuy kilifa ci dëkk bi. képp kuy kilifa ci dëkk bi. xam nga xam nga ko. alaaji muy alaaji Mamadou Diagne. ca Lamine. ca Lamine. moom lañ déppee Mamadou Diagne. moo leen déppee Mamadou Diagne mele. a ngi. njabootam yëpp a ngi. ne xam na liggéeyam ci ku nekk xam na li nga am ku nekk xam na li nga am ci réew mi ku nekk xam na li nga am ci réew mi benn doomam boo xam ne mu ne benn doomam boo xam lu réew mi lu dul réew liggéeyal na réew doom bu mu jur doom bu mu jur njëriñ na réew njëriñ na réew liggéeyal na réew liggéeyal na réew liggéeyal na askan liggéeyal na askan rawatina Baye Ndiaga rawatina Baye nga xam ne mbii nga xam moo jël bakkanam moo jël bakkanam jaay ko jaay ko ngir jàmm nit ngir jàmm nit li fi newoon mu ne li fi newoon. métti na lool. métti woon na lool. tey buñ toogee am lii. tey suñ toogee am lii. ñii. ñii ñooñu ko ñooñu ko may. ndax bi lii xewee ba tey. ndax bi lii ba tey. kenn. kenn toogatul toogatul fas nañ yéene fas nañ yéene génne li fi newoon génne li fi newoon saxal si dëgg saxal si dëgg su lii amutoon la su lii amutoon la kenn ñemutoon a génn kenn ñemutoon a génn ba tey rek ba tey rek ci noteel gi ñu nekkoon ci noteel gi ñu nekkoon jaam gi ñu nekkoon jaam gi ñu nekkoon coono bi ñu nekkoon coono bi ñu nekkoon ci ba tey ñu ngi woon ci ba tey kon nag kon nag ñii ñii. dañ mérito. dañ mérito. lu ëpp lii. lu ëpp lii. ñu leen di bàyyi xel. ñu leen di bàyyi xel. liñ leen mën a defal nag. liñ leen mën a defal. ñu leen di si muy leen di jëriñ. muy leen di jëriñ. mooy ñaanal leen yàlla. waaw ñaanal leen yàlla. waaye ku leen wax. nga waaye ku leen wax. beneen baat. beneen baat mu tudd ñii jullit lañ mu tudd ñii jullit lañ mu tudd ñii ñu baax lañ mu tudd ñii ñu baax lañ yaa ngi leen a tooñ yaa ngi leen a tooñ te di nga layoog ñoom alaxira te di nga layoog ñoom alaxira ndax yàlla mu ne ndax yàlla soo ko bëgg a defal dara soo ko bëgg a defal dara def ko si nit ñi def ko ci nit ñi boo bëgg yàqwante ak yàlla soo bëggee yàqwante yàlla yàqal eh, doomu adama yàqwante la doomu adama li yàlla bind li yàlla bind yàlla ci la ci gën a eh, doomu adama la ci gën a bëgg doomu adama la ci yàlla gën a bëgg su fekkee ne nag su fekkee ne nag tey suma mobile bii cupaay bi soo ko jëlee soo ko jëlee ci tayeef ci tayeef loolu ko ci maraaj bi loolu ko ci maraaj mu toj mu toj dinaa yàqwante ak yow dinaa yàqwante ak yow yàlla itam nag yàlla itam nag saa woo taxawee saa yoo taxawee di yàq doomu aadama di yàq doomu aadama yàlla yàqwante naa ak yow yàlla yàqwante naa ak yow tax li fi newoon mu tax li fi newoon yàlla bañ bañ yàlla lépp yàlla la balu bi doomu aadama la ci gën a bëgg doomu aadama la ci gën a bëgg kuy fitna doomu aadama yi kuy fitna dom aadama di leen toroxal di leen toroxal doo fa yàgg doo fa yàgg foog yàlla taxaw foog yàlla taxaw génne la ko génne la ko kon yang mooy li xew bon lii mooy li xew kon ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla ñii ñii yàlla nañ dëkk ko àjjana yàlla nañ dëkk ko àjjana yàlla na leen yàlla jéggal seen i bàkkaar amiin yàlla leen seen juumte amiin yàlla defal leen sutura amiin man nag mu ne moom nag maay wax ci mooy wax ci ah, kaddu Dianekounda kaddu Dianekounda li ma waroon a wax li mu a wax war naa bëri gën a bëri a bëri a rafet a waaye fii la suma kattan toll mooy fii la kattanam toll ak bañ a jël waxtu wi a waaye famille Dianekounda bi waaye njabooti Dianekounda bi yëpp ñëpp a ngi si ñëpp a góor ak jigéen ak jigéen ñoom ñëpp a ngi ne toog ñoom ñëpp a ngi ne toog ngir lii rek ngir lii rek ñaanal mbokk mi ñaanal mbokk mi yàlla jéggal ko yàlla jéggal leen may ko ajjana may leen ajjana ak képp ku mu àndal ak képp ku mu àndal barke alquran bi barke alquran bi ngi jéggalu ci kàddu yi ngi jéggalu ci kàddu yi salaamaaleykum wa rahmatulah gannaaw kàddu yooyu ñu ngi gërëm imam Mbaye ci kàddu yooyu am nañ ci ñi nga xam ne ñoom it lii leen dugaloon waaye alhamdulilah yàlla baaxee leen ba bàyyi leen ak leen teewal di alaaji baram ñu leen ko jox kàddu mu wax ci turi ñi nga xam ne ñoo xam ne yow mu ca te bokkam ci ñoom it tegoon seen bakkan ci yoon bi doon wax léegi alhamdulilah mu ne mu a wax ndax mu wax ay papa mel ñi fi ay yaram mel mu ne bon ñooñu war a war moom mu ekkati kàddu di fi wax dara mu ne waaye comme dañ ko mu ne ñu ne moom mu wax ci turi xarit beeg ana dooram yi bokkaloon lii magam Cerno Njaay rakam Moodu Njaay rakam Moussa Sarr ak magam Papa Fall ñoom ñëpp a ngi fi mu ngi wax turi ñooñu mu lim ñoom ñëpp mu ne di nuyu mbooloo mi mu ne ñoom nañ leen taxoon a bakk ci lii mooy métit gi nekkoon ci biir réew mi gànnaar fii métit googu moo leen boole woon ñoom yi neen xamante wuñ woon waaye métit boobu moo leen boole ba ñu xamante métit googu a taxoon ñoom ñëpp ñu jóg ñëwoon fii teg seen bakkan mu jaral leen lu nekk na mu ne ndax Gambie fii ku nekk dangaa ne suma papa wala nga ne suma yaay wala nga ne suma rakka wala nga ne kon su réew mi meloon noonu sa baay sa ndey sa rakka sa mag sa baay sa ndey sa rakka sa mag ku ko laal kon yow it laal na la lii moo taxoon ñoom seetuñu woon ndax seen mbokk lañ laal ndax li ñu ci doon seet mooy waa réew mi Gambien yi nga laal. soo laalee Gambien rek ñoom it Gambien lañ ñoom nga laal. Njaga Jaañ Lamin Saane ak Jaaja Ñas ñoom ñëpp lii la leen taxoon a jóg amuñ ci nag dara luñ ci rëccu yàlla ko dogalee nii moom mu war a nekk fii ñoom yàlla jël seen bakkat waaye mu ngi leen a ñaanal yal na leen yàlla suturaas may leen jàmm ca àjjana mu ne fii laay mën a kàddulam mu ngi dellu nuyu ñëpp kilifa yi teew yëpp mu ngi leen a nuyu ñoom ñëpp su ñëwee ci façon yi daje yi mu gis kilifa yi tollu nii xolam daf dee fees waaye daf dee am kontaan itam ndax gis na ne ñoom ca nekkoon du woon ñoo ñoomi neen yëg nañ leen jàppale nañ leen yàlla nañ yàlla fay jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamin imaam am nañ ci eh, jigéen yi jox kàddu ci li des ci waxtu wi balaa ñoo egg ci ñaani fidaawu gi li wala ñoom gaan ñu ngay jox suñ yaay suñ kilifa aji Yaasin Jóob nga xam ne mooy yaay Njaga amee kàddu ñu joxe ko kàddoom Can I watch you to London? suñ yaay aja ya Diop job ekkati kàddu. maaleykum salaam wa rahmatulah wa mune mu ngeen nuyu mbolo mi di len santa di len ñaanal tanka yi ngeen fi ñewé ak ngeen a delloo yal na len ko yalla defal xiyu ak wursa mune di santa yalla di julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mune di gërëm ñaari wajuram yi yaayam ak papaam di delu santa yalla ba bari mu ne ndax bés bii séntu wuñ ko woon waaye fekk mu ngi ci loxo suñ borom lu jot rek yàlla amal mu ne ku nekk xam na ne métti na foo ko natt rek ëpp na ko waaye jullit moom lu ko dal dafa delloo boppam ci yàlla ndax loolu rek la yàlla bëgg. mu ne moo tax ñu muñoon ko ngir yàlla. te yàlla tax. te yàlla tax. kii moo faat sa bakkani doom. mu ne kii moo faat say bakkani doom. munoo ci ci dara. mu ne la doo jël niiw bi. mu ne la doo jot niw bi. te sa mbokk mi fi taxaw ma faat ko. te sa mbokk mi fi taxaw it ma faat ko. xam nga xam ne kooka fàtte na yàlla. su fekkoon ne xelam dem na ci yàlla. su fekkoon ne xelam demoon na ci yàlla. xam ne yàllaa ko bind. mu xam ne yàllaa ko bind. bind bakkan boobu mu faat. bind bakkan boobu mu faat. du doon waxee noonu. du doon defee noonu. seytaane bu la manee. mu ne waaye seytaane bu la manee. doo gestu suñ borom. doo gestu suñ borom. mu ne moom day mu ngi sant yàlla. di gërëm Babacar Ndiaye. di gërëm Babacar Ndiaye. ak magam Thierno Ndiaye. ak magam Thierno Ndiaye. di gërëm doomam joo xam ne. muy El Hadj Ibou Diagne. ba lii xewee ba léegi. taayi wuñ. xaaji wuñ. seetuñ ci dara. ñu ngi dox ngir bokk. keroog bañ ko ooyee. gis nañ leen. ne gis nañ leen. am na ku wax ne xam na fi ñu leen denc. am na ku ne xam na fi ñu leen denc. mu xala mu xala jaaxle. ndig wéet. mu ne ndig wéet. mag ñi ñëpp ndax mag ñi yëpp dañ jeex. muy magi jaay. mu ne waaw. mu ne waaw. naa ne maga mang man mu ne fàtte na ne maga mang fi. muy Modou Diagne. muy Modou Diagne. mu woo ko. mu woo ko. ne ko Modou. ne ko Modou. muy muy muy muy Mamour Diagne. Diagne ma ne ko ñëwal jiital sarak. mu oo Mamadou ne ko ñëwal jiital sarak. muy Baye Mala Diagne. muy Baye Mala Diagne. ngeen ànd. ngeen ànd. ànd ak ñii. ànd ak ñii. ñu won leen fi ñu denc seen rakk. ñu won leen fi ñu denc seen rakk. ñu def ak ñoom. ànd ak ñoom. bañ won leen. bañ won leen fa. génnee ko ca bés boobu. sant yàlla. ñu sant ci yàlla. ci métti. ca méttit waaye ñu delloowaat suñu bopp ci yàlla. waaye ñu delloowaat suñu bopp ci yàlla. xam ne lii la yàlla tudda. mu ne ndax jaga. ay maamam ci jiyaar lañ des. ay maamam ci jiyaar lañ des. kon jaga bu desee ci jiyaar. kon jaga su desee ci jiyaar. wacce na. wàcc na. xam ngeen ne ku des ci tata. xam ngeen ne ku des ci tata. tata mooy state tata mooy state house. jàmbaar rek kay def ci tata. jàmbaar rek mooy def ci tata. surtout tata ji nekkoon fii. surtout tata ji fi nekkoon. kenn musta nangoo taxaw ca bunta ba. kenn musta nangoo taxaw ca bunta ba wala jege ko sax. sa kaka dem waaxu ba dugg. sa kaka dem waaxu ba dugg. kon ñu ngi sant bakkan yooyu. kon ñu ngi sant bakkan yooyu. yàlla dina leen fay. mais yàlla dina leen fay. yàlla leen yàlla yóbbu ca àjjana. yàlla leen yàlla yóbbu ca àjjana jannatul firdaws. barke Salaatul Faatiha. dara jaay yonente bi. mbooloo mi jërë ngeen jëf. mu ne fii la kàddoom am gannaaw loolu bente yi ñu dem ci eh, aji Meta Ndiaye de yaayu colonel Lamine Sané moom itam mu joxe kàddu Meeta Njaay moo leen a nuyu maaleykum salaam wa rahmatullah mooy alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mu ne mu ngi sant yàlla mu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa nuyu ñaari waajuram ak képp ak ku fi teew ilimaan bi ak nayba mi yëpp Babacar Ndiaye ak i rakkaam ak ñi ànd mu ne ak suñu yaay Yacine Diouf mu ne ak bàjjenam Mariam Ndiaye ñu ngi leen a jaale dëj bi ñoom ñëpp mu ne ak moom ci boppam mu ne ñoom day xanaa sant yàlla mu ne bés bi xam ne ñu ngi denc ñii ba benn sànnee ca àll kenn xalaatuloon ne dinañ génn tey mu ne waaye doomi jullit soo jullee juddoo ci islam yàlla jël la ci nga juddu ci ba màgga ci ba yàlla defal la lii mu ne ñoom day xanaa di sant yàlla rek di am kontante na ñoom ay doomi jullit lañ mu ne jullit yi dee leen jullee mu ne kontaan boobu ëpp na ci ñoom de mu ne Lamin bam juddoo mu ngi juddu ci biir diine islam musuta musuta gëte nit ci kaddu yoo xam ne kaddu yu ñaaw la orma la am digganteem ak nit ñi moo doom aadama yi yëpp mu ne ba mu demee léegi mu ne ba mu rek laa taxaw mu ne laamin kuy am jom la te xam na soxlaam xam na soxla jullit yi waaw ormal na ay kilifa xam na it seen soxla seen ay mu ne moom de mun a wax mooy seede ne jullit la doomu jullit la moom ay waajuram yépp ci loolu la judd bem màgge ca amiin yal na ko yàlla yàlla leen yàlla mais ñoom ñëpp àjjana mu ne coono jafe-jafe ñu réew yu Gambia ak waa réew mi ak gan ñi fi nekk ak seen mbokk ak seen àndandoor yi mu ne gata coono googu yal nañ ko xippee àjjana yal na leen yàlla dugal ca jannatu firdawsi ak way jiitu yi yëpp am mu ngi leen gërëm di leen sant yii mooy wan kàddu jërë ngeen jëf gannaaw loolu eh, waa diaspora bi mooy ña nekk bitim réew ndaxam ñoom ñoo jógee woon sax mooy ñi ñëw nii doon xeex si lii ñoo amee lii am teewal na leen fii di Ndeye Jobaate ñëw na moom dañ ko jox kàddu mu wax ci turu turi diaspora bi yëpp ndey jabaate imaam mooy nuyoo imaam mu laa nuyu yaag imaam fi teew yëpp mu ngi nuyu kilifa fi teew yëpp di nuyu yaa yaasin yaa meeta ak yaa mareem yëpp mu ne ñoom de tey biñ fi egsee ñoo fekk kilifa yi toog mu ne dëgg dëgg dëgg dëgg. ñoom amul ñuñ wax. parce que dañ ne mag baax na ci kër. ndax dañ ci kër. kilifa baax na ci dëkk. kilifa baax na ci dëkk. suñ toogee tey bay ñëw bay war a dem suul suñu ay nit. suñ toogee tey bay war a ñëw di denc suñu ay nit suñu mbokk. ñoo xam ne ñoo bi. ñoo xam ne ñoo taxawaloon dëkk bi. ñun ñu egg fekk kilifa yi ñoom ñu egg si fekk kilifa yëpp toog. ndaw yi sax. kilifa yi jiitu fi ndaw yi sax. ñoo toog pour jàppale ñu. ñoo toog pour jàppale leen. nekkal ñu fa. nekkal leen fi. ku ne dama ne ñëw ma fi tey pour defend seen action. moom kon daf na ñëw fi tey pour defend ñii jëf giñ def. ko soo xoolee économique bi lim fi nekk. mu ne ndax soo bi lim fi nekk. économique bi lim fi nekk dafa valider ñii liñ def. lim fi nekk dafa wane dëgëral na ñii liñ def. da pare soo xoolee ne 7000 soldiers. soo xoolee ne juróom-ñaari junney soldats. Africa West Africa yëpp. ñoom lañ isi Gambia. ñoom indi fii ci réewi Gambia. ne nañ ñëw ne Gambia ñoo sànni karta. ne ñëw ne Gambia ñoo sànni karta. ñu ne de Yaya Jammeh nanguwul ko. ñu ne Yaya Jammeh ne nanguwul ko. ñu indi soldats yooyu isi leen. ñu indi soldats yooyu jëlee leen seen réew indi leen. pour mun a defend pour protect. over one million Gambian ñu wax ne ñun dañ sànni karta bugaatu pour mun a aar Gam lu ëpp benn million yi Gambian yi nga xam ne dañ sànni karta ne bugaatu Yaya Jammeh kon lii validé na ñii seen action kon lii doole naa saxal ñii seen jëf suñ xoolee si bi door Monday tamit suñ xoolee TRC bi door ci loolu jéggal na. nit ñi di ñëw di wax seen li uh, li liñ daj si dëkk bi luñ daj si nguur gi liñ daj si loxo uh, président bi fi nekkoon. nit ñi ñëw di wax liñ daj ci réew mi liñ daj ci dëkk bi ci ñu daj ci loxo président bi fi kon lii validé na ñi seen action. kon lii saxal na ñi seen jëf yi. soo su ma toogee fii Buga defend seen action. bon su toogee fii buga defend seen action. dafa even affect seen moral stance. mu ne kon dafa laal sax ci seen taxaw yaay nit yaa di taxawoon. parce que ñun seeni doom lañ toog bitim réew. ndax ñun seen doom lañ toog bitim réew. yàgg nañoo xeex di xare pour change government bi. yàgg nañoo xeex pour wécc ci nguur gi fi neew. waaye ñii ñoo toog ne. waaye ñii ñoo ci toog ne. ñu ne xeex bi emut foofu war a nekk si biti. ñu ne xeex bi warut a em nekk ca biti rek di wax. xeex bi warut a nekk si computer yi rek. xeex bi warut a di bind rek. xeex bi warut a nekk social media rek. xeex bi warut a nekk ci social media bi rek. waaye xeex bi dañ ko war a yóbbu kër. waaye xeex bi dañ ko war a yóbbu ca kër. dañ war a dem fekki kii. xeexa moom dañ war a dem fekki kii janoog moom xeex moom. parce que soo nekkee doomi réew. ndax soo doonee doomi réew. sa réew di sonna sa réew di sonna muy ñu jàng kon da nga wara jog dem bon da nga wara jog dem kon maa ngi ñaanal kon mu ngi leen a ñaanal yal na leen yàlla xare ajana yal leen yàlla xare ajana ñi fi des tamit ñi fi des itam yal na leen fan bu daa wér yaram yàlla may leen fan bu daa wér yaram kilifa yi fi teew yëpp yéen kilifa kilifa yi fi teew yëpp yàlla yàggal suñ kanam yal na yàlla leen suñ kanam yàlla yàggal leen ngeen di ñu wax dëgga yàlla ngeen yàggal di ñu wax dëgga di ñu ñaanal di ñu ñaanal di ñu aar di ñu wëñi di wëñi maa ngi wax yaa meeta. mu ngi wax yaa meeta. yaa Mariam. yaa Mariam. yaa jëf. jërë ngeen jëf. wax ñun. mu ne lii mooy woon kàddoom. alhamdulilah rabbil alamin. bon li ci des ci waxtu wi. balaa ñoo jox caamaan mu gërëm mbooloo mi. am na ci mbooloo ku bëgg a moom dinañ jox suñu secrétaire bu wala ñu Omar Diallo pare dinañ jox Madi Diallo Madi Diabaté. Madi Diallo waaw Diallo waaw Madi Diabaté. si wul société bi. Madi. kon ñu njëkkee ci yow kon ñu njëkkee ci yow. Thank you. yay maam maa ne mu ngi ñun ilimaan yi ak kilifa bi teew yëpp mu ne li ci jiital way jiit yi seen waajur yi seen mbokk yi ak ñi teew ñëpp mu ngi ñaanal way jiitu yal leen yàlla xaral àjjana mu ne ñu dem nii ci jihaad lañ des. Um, kon mu ngi yaakaar ne jamono yi ne ñoom ñu nga ca àjjana. Um, mu ne kàddoom mu ngi koo sesal ci ndey jabaate li mu doon wax léegi. Um, mu ne li xewoon ci élection bi ba yaa jàmme bañoon pour dem. ba économique soldat yi dugg si suñ réew mi. loolu li mu mooy ne ñooñu liñ jógaloon December 31 loolu lañ wëral. mu ne loolu lim wona mooy ne doole jooja su ñëwu doon yaa jamme du doon nangu mukk pour génn ci réew ko mu ne soo gisee muy am na ci ñoo xam ne ñu ngi la jëfi criminal la yaajum me me tandi wolom na kawle anniñi na lowani démocratie yaa jàmme li wane woon booba mooy ne doole rek moo ko fee génnee ndax nanguwu doon pour suñ luwaa yi suñ élection yi nit ñi seen kàddu génne ko ci réew mi mu ne moom moomu réew mi réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk mu ne nit ñi kiñ def président loolooy kàddoom ci loolu la toogee toogu booba suñ toogu la mu ne ci kaw loolu su mbooloo mi ne demal foog nga génn rek mu ne réew mi itam ni nga ko war ni nga doxalee mooy dafa war tegu ci yoon ak cëri doomu aadama ak xi doomu aadama élèves yi doomu aadama ci lañ war a teg. mu ne nguur gu nekk nga xam ne da ngay eh, xitasar réew ma di sonal waa réew ma. kon waa réew moom am nañ droit pour nuñ mun a def rek suy forcé sax ñu génne la fa mu ne nji dem mu ngi yëgee ne ñoom ñu ngi leen a gërëm di leen santa di wane ne ñoom dañ wane ne ñoom doomi réew mi lañ ñu baax mu ne waaye ñoom de dañ ñu bàyyee sas boo xam ne ñun ñuy dunda loolu suñ sas la mu ne ñooñu leen ñu wax mooy ne bu ñangooti mukk ñu am président bu ci réew mi boo xam ne dafa toroxal waa réew mi dafa bañ li lu waa réew mi def di def li ko neex mun a buñ nangu eh, président di toog mbaa nguur di toog boo xam ne dafa dàqa doomi réew mi ñuy dem ca biti di fa dëkki dig ni moo doxalee mënatuñoo nangu président toog di jàpp ay doomi réew mi di leen denca eh, wala mu leen a rey wala mu leen a toroxal loolu waratuñ ko nangu mu ne kon suñ nangoo loolu ñii ñuy doon ñaanal ñoom kon nit ñi fayu yeen seen axa lii li mu ne mooy ne doole kon tey dem Gambia fi mu ne nii démocratie rek moo fi war a sax mu ne xamul ñeneen de waaye ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci civil society bi ak organisation bi ñoom liñ waat mooy ne réew mi du tegooti ci tànka yooyu mukk dinañ ci taxaw di ci liggéey mu ngee dellu di nuyu nuyu mbooloo mi yëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf ñu ci suñ kilifa Amadou Diallo jëlal ko mu ko jël ko maa ngi nuyu imam bi nga xam ne moo taxaw place yi imam ratib bi ci kan imam suñ kilifa honorable Omar Diallo mu ngi nuyu imam bi nga xam ne moo taxawal imam Baba Mutali fii ak yeneen ilimaan yi fi dajee yëpp maa leen a gërëm di leen sant. ak yeneen ilimaan yi fi daje yëpp mu ne mu ngi leen a gërëm di leen sant. di nuyu Mr Diadio si chairman mos committee bi ak yeneen committee members yëpp. di nuyu Mr Diadio si chairman mos committee bi ak yeneen committee members yëpp. waaw ah, tey nag li ñu fi dajale. ne tey nag li ñu fi dajale. ñun ñëpp xam nañ mooy lan. ñun ñëpp xam nañ mooy lan. kon nag ñu ngi jàllee ñetti famille yi nga xam ne ñoom lañ seen njaboot. jiitu ñu ñëw ñaanal si leen fii tey. bon ñu ngi jaala ñetti famille yi nga xam ne ñoom la seen njaboot yi jiitu ñu ñëw tey di di leen ñaanal. ñoom ñetta yëpp dégg nañ seen waxtaan. ñoom ñetta ñëpp dégg nañ seen waxtaan. liñ ci wane mooy ne seen gëm yàlla lañ wane. liñ ci wane mooy ne seen gëm yàlla lañ wane. kon nag ñi fi daje yëpp ñu leen a gërëm ñu ngi leen a sant. bon ñi fi daje ñëpp ñu ngi leen a gërëm bi leen sant. ñi nga xam ne dañ jógee ci fan. ñi nga xam ne nag ñoo jógee ci diaspora bi tam ñu ngi leen a gërëm ñu ngi leen sant bu baax. ñi xam ne it ñoo jógee ci diaspora bi ñu ngi leen a gërëm. leen sant bu baax. dafa mel ni tey li ñu fi teg. dafa mel ni tey li ñu fi teg. dinaa ci wax tuuti li ndaw si la jógee amee euh, diaspora ak euh, Madi li mu wax. dina ci wax tuuti li Ndeye Jabaate doon wax ak Madi li mu doon wax. ñii wax leneen kon ñu dañ réer. mu ne ñii wax leneen kon ñooñu dañ réer. dama ne. moom daf ne. yàlla duy juum. yàlla duy juum. te mënuma xalaat lu tax nit ñi war a xalaat ne yàlla mun nañoo firaawo ne nekk buur. mu ne mun tax xalaat lu tax ñuy yàlla wax ne nit ñi wax ne firaawo na nekk buur. firaawo na buur la woon. firaawo na buur la woon. buur bu bon. buur bu bon. buur bu soxor. buur bu soxor. buur bu xamul dëgg. buur bu xamul dëgg. yàlla kan la indi pour mu génne ko. yàlla kan la indi pour mu génne ko. yónnente yàlla Moussa yónnent. yónnente yàlla Moussa yónnent. mu xeex ak moom ñeneen fukki at. mu xeex ak moom ñeneen fukki at. rey ko génne ko. rey ko génne ko. kon nag ñii tey ñu toog fii di ñaanal. bon ñii tey ñu toog fii di ñaanal. dañ roy ci jikko bu rafet ak jëf ju rafet yi yonent yàlla Moussa. dañ roy ci jikko bu rafet ak jëf ju rafetu yonent yàlla Moussa. kon nag loolu dañ leen ci war a gërëm sant leen. kon loolu dañ leen ci war a gërëm sant leen. ndaxte soo amee buur bu bon. ndax soo amee buur bu bon. ah kon nag war ngaa roy ci yonent boo xam ne génnee na buur bu bon. war ngaa roy ci boo xam ne génnee na buur bu bon. kon nag ñun amuñ dara pour wax leen. kon ñun amuñ dara gërëm leen. lu mooy sant leen gërëm leen. sant seen famille yi nga xam ne ñoo leen indi ci àdduna. sant leen seen famille sant seen famille yi nga xam ne ñoo leen indi ci àdduna. yar leen yar bu baax. yar leen yar bu baax. def jikko bu baax ci ñoom. def jikko bu baax ci ñoom. ba nga xam ne bugga nañ seen réew bugga boo xam ne. da nga xam ne bugga nañ seen réew bugga boo xam ne. jaral na leen dee. jaral na leen dee. kon nag ñun ñii dañ war a nekk royuwaay. bon ñi dañ wara lek suñu roy way dafa wax ñi at at bi nga xamne a wër bi nga xamne mom lañ leen reuy wër bi nga xamne at bi nga xamne ci lañ leen reuy rew mi war nañu jël fan bobu rew mi war nañu jël fan bobu diko def fan bo xamne diko def bes bo xamne dañ bu nga war di fatali rew mi yépp lan mo war doomi réew mu baax. dañ da war na def fàttali réew mi yëpp. lan moo war doomi réew mu baax. kon nag ñii li ñu war a def mooy. kon li war a def ñii mooy. ñaanal leen. ñaanal leen. pour fañoo dem mu gën a leen fi jóge. pour fañoo dem mu gën a leen fi jóge. di te liñ def. mu ne ndax liñ def. ñun lañ ko doon defar réew mi lañ ko doon defar. ñun lañ ko doon defar réew mi lañ ko doon ko am na ñu bari ñu dem. mu ne ndax am na ñu bari ñu dem. xalaatatuñ Gambia. xalaatuñ Gambia. li fi daan xew. li fi daan xew. rey. rey tëj tëj yi tooco yi tocco yi dóor yi dóor yi dàqal liggéey dàqal liggéey ñun ñëpp xam nañ li fi daan xew ñun ñëpp xam nañ li fi daan waaye ñii ñoo ne waaye ñii ñoo ne gannaaw yaayaa jàmme ci boppam gannaaw yaayaa jàmme ci boppam feteel la jël fitna la leen dugg ci réew mi feteel la jël fitna leen dugg ci réew mi ah kon nag ku ko bëgg génne ci feteel la fitna yaa moo ma yëpp kon ku ko bëgg a génne ci feteel la fitna yaa moo ma yëpp da nga bëgg a réew mi dellu ci jàmm da nga bëgg a réew mi dellu ci lan leen def lu kon nii luñ liñ def lu baax liñ def mu ne lu baax la lu baax pour réew mi lu baax pour réew mi la jàmmi réew mi lañ bëggoon jàmmi réew mi lañ bëggoon kanami réew mi lañ bëggoon jëm kanami réew mi lañ bëggoon nit ñi moom seen bopp lañ bëggoon nit ñi moom seen bopp lañ bëggoon am na time gambe yëpp nekk nañ jàmm am na waxtu jàmm yëpp jàmm nañ kenn ñeme ñu ta wax kenn ñeme ñu ta ñu ta yëngatu kenn ñoo ñëwoon ñii ñoo ñëwoon pour génnee loolu suñ baat pour génnee loolu suñ baat kon naa dafa bëgg ku fi jóge tey kon dafa bëgg ku fi jógee tey soo ñibbee sa kër soo ñibbee sa julli julli ñaanalal ñii. julli boo julli ñaanalal ñii. te ñii dañ ñëwoon pour sauver ñu. ndax ñii dañ ñëwoon pour sauver ñu. seen bakkan des ci. seen bakkan des ci. ak ñañ àndaloon nag. ak ñañ àndaloon nag. te ñu yàlla sauver leen. te ñoo yàlla sauver leen. ñu leen a ñaanal. ñu leen a ñaanal. di leen gërëm. di leen gërëm. te ñun nag. mu ne ñun nag. buñ leen fàtte. buñ leen fàtte. ne leen baala baala le de. nañ leen baral waaye fàtte buñ leen ko fàtte waaye fàtte buñ ko def suñ fàttee rek suñ fàttee rek li xewoon na xewaat li xewoon dina xewaat te kon loolu musiba la de kon loolu musiba la buñ leen fàtte de buñ fàtte de nañ leen balale nañ leen jéggale jéggale jéggale waaye fàtte waaye fàtte li fi xewoon li fi xewoon ñaar fukki at ak ñaar ñaar fukki at ak ñaar kenn eeneewut ak sa de dellu ci loolu kenn eeneewut sa njaboot delluwaat ci loolu kon nag kon nag nañ jiital suñ xel nañ leen jiital suñ xel bugga suñ réew bugga suñ réew bugga suñ jàmmi réew suñu jàmmi réew. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf gannaaw loolu ah, Ousmane Benga moom itam dina wax ci turi Duga. Ousseynou la Ousmane Ousseynou Ousseynou Mbenga waaw tey maam Ousseynou Mbenga mooy nuyu mbooloo mi mu ne xam na ne waxtoom ñoo dab waaye mu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp di leen nuyu seen tur ak seen sant bés bii bés bu màgg mu ngi jaale njabooti jaañeen gi mu ne ndax moom ci la bokk ak njabooti Lamin Saane gi ak njabooti Jaajo Ñas bi mu ne xam na ne solo sandeng ni wam nekku fi waaye moom itam ñu ngee jàll njaboot boobu suñ ñetti doomi réew yi liñ def mu suñ ñetti doomi réew yi liñ def ñun duñ ko mus di fàtte ku leen ooyee beneen tur boo xam ne dafa ñagasal seen jikko wala seen jëf nañ wax lu leen neex waaye Aliou Niass ñi nga xam ne ñun xam nañ ni nee na ooyee. ñii ñooy suñu jàmbaar. ñii ñooy suñu jàmbaar. royukaay lañ. royukaay seetu lañ. seetu lañ. ñu ñu ngi doomi Gambie wala soo Afrique yëpp. ñu leen di roy. a roy. ku mu ne ndax ku toog. nootaange. nootaange. fitnal la. fitnal la. juróom ñaari at ñaar fukki at ak ak juróom. ñu ñëw. ñu ñëw. def loo xam ne. si li bokk pour Yaya Jammeh génn na ci li fi génn Yaya Jammeh. liñ leen a defal. ñun ñoo a def ñun nag mun a def. mu ñun ñoo ko mun a def dinañ sas nguur gi nag seet mun a def. a waaye su ko nguur gi mënut a def. ñun dinañ ko def. dinañ fi fi tabax loo xam ne. kenn du leen fàtte. kenn du leen fàtte. ba faw. ba faw. mu ne xam ñu mu ñoo def fi mu bëgg àdduna si yëpp xam ne. mu ne waaye dafa bëgg àdduna si yëpp xam ne. ñun tey fii nii. ñun tey fii nii. bés bu màggal la ñun. bés bu màggal la ci ñun. ndax suñ nekku doon di xeex. ndax suñ nekku doon ko nii suñ ñëwee du leen musa tëral ci jàmm ñu dal. moo tax xeex bii xeex bi jeexagul. am na ñu dee wax ne struggle bi jeex na xeex bi jeex na. programme bi mu ne overagul de. a wax sas waa Gambie li mu bëgg a sas sas waa Gambie mooy ne. bu nekk fii di miinal nguur gi fi ne liñ miinaloon Yaya Jammeh. fii. fii kenn du ñu fi yabati. kenn du ñu fi yabati. fii kenn du fi nekk nag di semaine suñ bopp di wax ne mu ngi taw. kenn du saw suñ bopp naan mu ngi taw. a sas nit lii la bëgg a sas nit ñi. njaga. ak ñaari complexe yi ni ak ñaari ñum andalon ñi ak ñi fi dess ak ñi fi dess ñom cerno ñom alaaji ñom cerno ñen manko ne ñen manko rofante mbaga ñu sessante mbaga xamne xamne jeexagul xex bi jeexagul dess di dess mo opali romba mu ngi nuyu ñepp wa alaykum salaam wa rahmatullah

ñu bëggoon moom bu ñëwee. ñu bëggoon moom su ñëwee. yaakaar naa ne bu ñëwee. yaakaar naa ne bu ñëwee. ñàkkul mu sànni ci kàddu. dañ bëggoon a tàqal lu tuuti rek. dañ bëggoon a tàqal lu tuuti rek. ñu may ko ba mu ñëw. ñu may ko mu egsi. mu sànnee ay kàddoom. su ko sànnee ay kàddoom. di door a dugg ci ñaan bi. jumaa ji bu ñu ci duggee. nee nag jumaa ji suñ duggee ci biir. dañoo soxlawoo rek mooy affaire yi ci jumaa ji. duñ fa nangoo wax dañoo soxlawoo rek mu affaire jumaa ji. su di nga demee su fekkee am na keneen ku am kaddu. am na keneen ku am kaddu. am na keneen am kaddu wala ci diggante bi ñu taxawum caamaa bu gërëm mbooloo mi santaleen ci turi jumaa ji caamaa Alaaji Abdou Diallo si mu ne mu ngi nuyu mbooloo mi yëpp. mu ne am na kontaanteer bu rëy. mu ne ndax nit ñi uysu nañu. mu ne lii tiis bu mag la. mu ne new yii ñu indi si suñ jumaa ji fii. mu ne lii mbiri réew mi yëpp la.

mu ne comme que nag jox nañ ko cër gii moom nekku fi de waaye mu ngi Amérique jamono yii ah, a naataji ko a yalon mu ne mu xam ne waa dëgg la moom nekkut fi waaye naybam yi ak waa comité bi nekk ci jumaa ji loo xam ne mun na koo def rek ñoom mun nañ koo taxawee bari toon ne kalifi sawt téemam be yaalam ne ñi njànnuma ko ta kalifi sawt la na ta mu ne waaye suñ diggante jumaa ji ak jumaa ja nekk kalifin sawt ñëpp xam nañ ne jumaa ji kalifin sawt moo jur jumaa ji kalifin sawt la moo texeer bu njëkka suñ jumaa ji adum be yàlla ne kalifin sawt la imaam sawane problème o mel laata fanan ka ñiŋ keloo kono naŋ a warata baa kele duŋ te ñun ñëpp xam nañ ne jamono yii kantin sawteel ilimaan bi imam Sawone ci biir xeex googu moom itam jafe-jafe yooyu tegu woon na ci ko am bari imam kanifin saw itol tata ena kaburola to do kuola enata kumandi wala to ka samba enata samba a manna muru nan kote ke ya halaki min siyata sanji ke nin fentabe baro kono mu ne ñoom imam soone booba te seen eh, fulekaay bii nga xam ne fa lañ war a yóbbu ñii denca leen fa foofu la ñoom demoon dafa def naka sudut noonu ci loolu taxawoon ben jëlee ko fa yóbbu ko eh, foo xam ne kenn xamul fu mu ne lu ëpp benn at ñu ngi koy toroxal eh, wo imam o ni babali ko barake man tara jang fanan yo ɓum ñaccika a yaadi imam kanifin la furu suna a silo ñin furawol maka salima mu ne imam babali ne comme que moom yàlla atte na nekku fi te moom moom imam Soone boobu ñoom ñëpp ci lu mel nii leen jaar kon moom mu ne mu ngi jagleel imam Soone boobu eh, sedda ko mu ñëw taxawee ñii jullee inchallah imam sawala fiyamo alfisila kannande tunde woto sambeɓe fota allah nan atele janda tugo kala bi aɗon atele salla forewol faral ne ci kaw loolu moo tax jumaa ji jagleel imam sawne boobu tey mooy xutba ci jumaa ji moo fee jiite su paree nag mu jiite ni wii duwala jamaɓe allahmaɓe ore gamɓe duwala mi sabantol fanade fo aratalla sinni so arjana amin mu ngi ñaanal eh, ñi fi ñëpp yàlla leen yàlla fay way jiitu yi yal na leen yàlla xaare àjjana. mu ne mbokk yi fi teg yal leen yàlla mujjoo tiis kii. ndi mbayali mene to koma fala tan lasi jalaji man tan wala mu ne njaboot gi bàyyi gannaaw yal yàlla teg loxo ci ñoom yàlla defal leen wér ak jëm kanam asalaamaaleykum na keneen ku am kàddu

mune diko jale ko jaale suñ boppa di jale ñi faatule ñep mu ngi ñaan yalla ñi ñoo den sa ci ni dana yalla egal yeen ci adana ci gina ko wax di jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam mune dañ ko jox envelope fi legi mune joge ci vice president looya Ousseynou Dabo di feeñal ne ñëw na fii teel mu ne waaye fekk fi woon kenn waaye mu ne dafa nekk ci meeting yi réew mi security council meeting moo tax ñaan gi mënu koo teew waaye ene woon la ene woon pour mu teew mu ngi feñal ne dina jéem jullee ci bi juma bok ak ñun mu na jox na ko ñetti enveloppe benna bi pour famille jaja ñass benna bi pour njabo ci jaga jangi famille benna bi pour njabooti laamin sal mu ne mu ngi ñaanal ñi yalla leen yalla xara aja yalla egal leen ci ajja yi gëna ko mu ne di wax famille yëpp ne na ngeen muñ mu ñëw ko yàlla xam nañ ne gëm ngeen yàlla te lii feeñe ci seen kàddu yi ngeen fi ëkkat ñu ngi leen a gërëm leen sant mu ne mu maa jox enveloppe mu teg ko ci njaboot bi ku nekk seen yaay yi ñetti enveloppe yi ñu ngi nii

tey maam xanaa ñu feeñal ne rek jataay bii ñu nekk nii mu ngi nekk Amérique daay ka Amérique yëpp ñu koo gis live kon ñu xam loolu du ñun rek ñoo fi teew waaye waa Amérique yëpp ñun ñoo seetaan alhamdulilah mel egsi na boo mbooloo yam ñu ne moo ebal Imam Maale jógee Bakawaare pour mu ñëw teelal ko fi Mohamed mu ngi fi yaa ngi récolté hmm moom

alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mu ne Modou Lo meeyam ñoo bokk yoon wi. mu ne dañ def li waxtu yu bëri. dañ cee dem ci jumaa yi di fa julli. mu ne julli yooyu suñu am. mu ne ndax ay ndaw lañ. dañ amee place. ni nga attaque politique wala kàlla la. su fekkee ni ci mbiri politique la. loolu yaa ngi ñu kunu ñi gisoon nañ ko démb ba gisuñ ñu woni su eggee ci jumaa yooyu ñoo kilifa ñu gisee. ñu si ñu nuyu wante. su ñu ñu ñaanalante. naata naa mooy faral kaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. mu ne ñu ñu ne dafa am dëj. ci kaw loolu lañ jóg ne ñoom itam ñëw egg si fii. ñu ñëw ñoom it ñu ñaanal way jiit yi. mu ne ak ñi jiitu ñëpp. mu ne meeyoo def ci meeyoo. ak Babacar Jammeh political adviser mare sama di frama ni mani kisa kare ngi ñaanal way alama amin ya rabbal alama alay bakko sumayani amin ala baraka ba jere ngeen jëf yaay ni duga ci ñaani fidaaw duga ci boo déggee too Baal Fall Ndiaye balaa ñoo tëj. mu ngi gërëm mbooloo mi di leen sant di di jiital imam Babali nga xam ne moo ñu defaral lii. waxkat yi yëpp wax yëpp wax yi wax yëpp. mu ne waxkat yi wax yi ci wax yëpp. wax yu déggu lañ. comme niñ ko waxee rek suñu mbokk yi nga xam ne ñoo tax mu ne comme niñ ko waxee rek suñu mbokk yi nga xam ne ñoo tax ñu daje fii tey. dañ teg seen bakkan pour goreel réew mi seen bakkan pour goreel réew mi lii moo waraloon seen jëf bi. am na yeneen bakkan yoo xam ne rot nañ ci xeex nguur gi fi newoon. te am na bakkan yoo xam ne rot nañ fi ci xeex nguur gi fi newoon. ñun nag dañ bugg a use occasion bi la. mu ne ñun nag dañ bugg a sukkandiku ci ndaje bii. leen a. Euh, les célébrer. mu ne pour ñoom ñëpp ñu mun leen a màggal. ñu mun leen a màggal. ñu mun leen a màggal. bokk na ci ay ñu mel ni ñoo wax ay solo sendeng. bokk na ci ku mel ni solo sandeng. ku mel ni Dédé Haydara. ku mel ni Dédé Haydara. ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne. ak ñeneen ñoo ñeneen ñoo xam ne mënuñ leen a tudd sax. jàmbaar yu bari bokkoon nañ ci xeex bi leen. jàmbaar yu bari bokkoon nañ ci xeex bi. bokk na ci ay bokkoon na ci ay jigéen. soo seetee bi ñoo wax euh, April 14 16. bi ñoo wax April 14 16. nga xam ne bañ reyee solo sende. nga xam ne bañ reyee solo sende. ay jigéen tapi. ay jigéen takku. génn bokk ci xeex bi. génn bokkoon ci xeex bi. ñoo loolu yëpp war nañ leen a màggal war nañ leen a récolter. ñii ñëpp war a a ràññee. ne dëgg ñoo xam ne su ma xeex xëy na jàppul seen tur fi mu ak ñeneen ñoo xam ne xelam fi mu ne xëy na jàpp turam. waaye li mu a wax on behalf of uh, victim center ak civic society. mu ne li mu a wax ci turi victim center bi civil society. ne ñoom ñëpp ñu ngi leen a recognize. ne ñoom ñëpp ñu ngi leen a ràññee. képp xam ne taxawoon nga ci xeex Yaya Jammeh. képp ku taxawoon ci xeex Yaya Jammeh. taxaw pour dégg am ci Gambia. taxaw pour dégg am ci Gambia. taxaw pour freedom am ci Gambia. taxaw pour freedom am ci Gambia. ñu ngi ñu ngi laa màggal ci bés bi. ñu ngi laa màggal ci boole ci yi nga xam ne ñoom la seen bakkan rot. boole ci suñ yi nga xam ne ñoom la seen bakkan rot. te ñoom ñu tax ñu daje fii tey ñu ngi leen a gërëm di leen sant. yéen ñi fi teewee ñëpp. di ne nag lii suma mag ji waxoon mbeng. di wax ne lii magam ji waxoon mbeng. dañ leen bàyyi suñu xel bu baax. dañ leen bàyyi suñu xel bu baax. réew mi ñoo ko moom. réew mi ñoo ko moom. lu war a dox. lu war a suñu njëriñ. dafa war a doon suñu njëriñ. doon suñu waaw. doon suñu waaw. buñ nangooti mukk. buñ nangooti mukk. nit nekk fi. nit nekk fi. ñun ñu fal ko. ñun ñu fal ko. di ko fay. di yëpp amee yëpp. mu mu foog ne ñun moo moo moom. mu foog ne ñu moom. di def lu ko neex. di def lu ko neex. jël suñu alali di ko pasar pasar. jël suñu alali réew mi di ko pasar pasar. demee si lopitaan yi garab amul. soo demee ci lopitaan yi garab amul. dem si school si school yaa ngi di lapide. nga dem ci jànguwaay yi ñu ngi tasaaroo. nit ñaa ngi si ak ak ak ndóol. nit ñaa nga jël di pasar pasar. yow nga jël di pasar pasar. loolu buñ ko nangooti. loolu buñ ko nangooti. dañ leen taxaw xeex. ne ngeen taxaw xeex pour dëgg. loolu rek moo ñoo mën a yóbbu. rek a ñoo mën a ci kanam. ngeen jëf ñu wax mi rek ci turu ak imam Baba Muxtar lii ne jumaa ji lañ baaxoo mooy kuñ fi jullee eh, ci dimanche di ñëw di njëkka dañ laa ñaanal kaamil ci jumaa ji fukki waxtu laa door waaye bii dimanche bii di ñëw bi ci toppalaa nekka ñaar fukki fan ci weer bi bi jiitu lañ ko dee def waaye suñ imam Baba Muxtaar lii am nañ xibaar ne mu ci yoon wi moo tax ñu def ko on the twenty eight ndax mu ngi ko fekkee moom it cëraman ci kon ñaar fukki fan dimanche fukki waxtu dinañ jàng kamu fi jagle ko ñi ak ñi jitu ñep jërë ngeen jëf ngeen jëf imaam na gannaaw Faatiha. kenn ku nekk ci ñun. kenn ku nekk ci biir jumaa jee koo mun da dekka. góor ak jigéen. góor ak jigéen. nga def téeméeri astafurlah. nga def téeméeri bismillaahi rahmaani rahiim. gannaaw Fatiha bu ñu paree ci loolu. bu ñu paree ci loolu. teg ci. te na ku ne teg ci. téeméer ak ñaar fukk. téeméer ak ñaar fukka. ci basmala. ci basmalatu bismillahi rahmaani rahim. basmala mooy bismillahi rahmaani rahim. ñu yéene ko suñ doom yii. ñu yéene ajana. yàlla xarul ni ñu ko yéene ñun ñëpp. ñaanee ko noonu. yaakaar ji ci des. yaakaar ji des. ñu bàyyi yàlla. ñu bàyyi ko yàlla. mu mottali ko mooy mu xaru leen ajana. mooy mu xaru leen ñu ne tamit bu ñu leen fekkee. ñu ne bu ñu leen fekkee. fekk leen ajana. yàlla mën na ko. yàlla na ko. yàlla ko yàlla def. bisimilah. bismillahi rahmaani téeméer bismillahi rahmaani rahim téeméer ñaar fukk kenn ku ne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 اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الى غفرته ولا هما الى فرجته ولا دينا قضيته ولا مريضا الى سقيته ولا ميتا الى رحمته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم المسلمين امين يا رب اللهم الجميل وحملنا بلطفك الجليل وكلنا صاحبا في مقام الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل رب اللهم الذي بسترك الذي نفسك فلا ينطرك اللهم يا من اسرى الجميل وستر الخبيث استر قبيعنا وايوبنا كله برحمتك يا ارحم الراحمين امين اللهم صل على سيدنا محمد في القلوب ودوائها آمين يا رب وعافية الأبدان وشفائها اللهم آمين الأرواح ونور الأبصار وديائها آمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين يا رب العالمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد ذلك صفوف الملائكة آمين وتسبيحهم وتمجيدهم وتهليلهم وتكبيرهم وتعصيمهم من يوم الدنيا إلى يوم القيامة صلاة تملأ الأزل والأبد zamanan wa makanan wa makrubatin fi kulli adad wa adad ma fi ya allah ya wahid ya samad ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya man isa arada shay'an an yakul lahu kufuwan fayakun amin subhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in la yakun lahu ya rabbi salam wa qalan min rabbir rahim allahumma anta matana bi du'ai da'awna kama matana fastajibna kama wa'atana innaka la tukhliful mihad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin العالمين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إمام بسم الله Thank you. Começar a câmera. mooy ba tey gars ñu ngi dugg si biir juma bi euh, dem def li nga xamante ne ni moom mooy Friday prayers bi euh, dina leen indil nag euh, Friday prayers yi ak leneen li nga xamante nii moom mooy ak ay interview ah, approche neen kenn ki nga xamante ne nii bokkoon na si victime si Alaaji Baro waaye moom nag ah, nee na ne duñu mën a grand li nga xamante ne ni moom mooy interview waaye dinañ seet ki nga xamante ne nii moom tamit bokkoon na si ñi nga xamante ne nii bokkoon muy Pape Fall ah, ba tey ñu dem si biir juma bi indil nga xamante ne nii moom mooy Friday prayer bi ak yeneen i interview loolu yëpp dina leen ko indil subscribe si suñu page bi euh, soo leen subscribe suñu page bi di ngeen gis foofu noonu euh, green button green button bi nag mën ngeen faa dem ngeen click ko euh, ndax ngeen mën a bokk si monde de subscription bi su ko defee ngeen mën ñoo dooleel mën na naa indil programme ak coverage yu mel ni yu bëree bëri bëri di leen jaajëfal si seetaan bi ngeen rafet di ngeen naan seetaan Gambian Talents TV di leen xamal ne tey fii leen nekkoon kaa defee si juma imam Baba Libi ba tey it gars yi ñu ngi dugg si biir def seen Friday prayer suñu paree ñëw def li nga xam fi daaw bi euh, si ñi nga xamante ne nii war nañ la jébbal seen borom euh, tey jii nii di leen jaajëfal seen déglu bu rafet jërë ngeen jëf